avion pour booy seen ceeb yi parce que jéeg a may la parce que booy yi nii parce que. ah booy ku nekkul musique. yow c'est que yàlla dafa def benn affaire yow yow ba ñuy ba ñuy tudd moom déglu ma moom laa la ba ñuy tudd gaa imin imam bi ba ñuy tudd dafa moo ñaara suñu tudd sa deret yow te Serigne Mbamba dañoo am si yow loo xam ne ba dañ la bëgg ñun mille dix cent ans la yow la ñuy toog dañuy sañse sol daal yu rafet. mbër loolu topp mbër temps yi tant bu teg moo teg waaw mu Gris Bordeaux ci biir mbër yi. lan teg voilà. ñun dañoo kilin. ah non kilin dama bëgg. suñu dañoo kilin. Ah, yokk gën a yokk kilin. sifli sa xeet parfum yu neex. Ah, sol lu nice. kon ñu def costume cravate. Ah, non du nice dama tànn la perforé. <laughs> perforé ah. waaw jéem jéem. ñun moom rek la ñuy topp. ko ci nii lañ la waay. waaw ñu ngi lay bëggee law naka mu yaa ngi ñu ngi lay ziar di ziar waa Medina TV yëpp di ziar waa Medina waa Fass waa zone 2 daal zone 2 zone 3 zone 1 yëpp ñu ngi leen di ziar bu wërëwër. ñu mu a nekk dimanche bi le 30 euh, sa mbër war ci bëri at sa benn poulain euh, balaa ñuy jul dugg ci Gris Bordeaux dañuy dugg ci Arafaas mi nga xam dafa war a bëre ki nga xam ne mooy Gouye tey na nga gisee Arafaas ak euh, état physique bi ak ni mu préparé combat am. préparation sax weesu nañ ko xëy na dañ naan na dañuy ñaan yàlla kay bés kay kan bañ am benn ñoom ñaar mbër yëpp mbër yëpp sax ñi xam ne mooy Ama Baldé mi war a bëri ki xam ne mooy Gris Bordeaux tey aara lan war a bëri ak xam ne mooy guy gi aada moo daa ko bëri ñooñu guy gi daan waaw aada ñooñu nga tudd ñëpp aada dàq bëri techniquement lay waxe quoi moo dàq bëri ñëpp bokkul ñu bëri adversaire bokkul aada aada la techniquement aada dàq bëri guy gi fuuf bu lama ja incha ko da da koy nax wala wala wala a wax loo xam ne sax gëmoo ko signature la ñun xam aada ay magang si si ginnaawam xam a digal ne booy mu liggéey pour guy gi te lu lu muy liggéey li mu war a def incha allah da koy def incha allah bu dimanche. bu ñu jógee ci loolu dañuy dugg si nga xam ne mooy diggante mooy combat mag bi boo di opposé ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux ak Ama Baldé tey Gris Bordeaux noonu la ko waajalee. waaw Gris moom pare moom sincèrement boo xoolee entraînement ni mu demee nii sax contact yeeg yëpp mu ngi contact normal mu ngi bëre normal waaw yooyu yëpp mu ngi koy def moom mu ngi bëree mu ngi xeex ngi def yëpp man am na leneen lu ne sama kanam man tamit lu a jël. Gris am lu mu wax ne moom ci ci carrière am euh, li mu ci bëree bëriwul maanaam li ci ëpp dafay day a bëre yow loolu doo noo si yow da a ñëw sax boo ñëwoon léegi-léegi confirmé na bëre bi wane na si xeex bi yooyu daal mbër quoi mais xam na ne moom mbër la bu xam ne dafa war a bëre te lamb ji bëri si bëri la koy jeexalee incha ku ci mel ni Gris Bordeaux bu ñu xoolee tey ci début carrière am dafa ku ci mel ni Antoine Bakhoum Khadim ko Eumeu Sène bi muy ñëw nekk ci lancé mu daan Lac de bi mu fi nekkee xam kenn mënu kaa daan ku ku ko daan ko àlam avant mais est-ce que Gris Bordeaux moom ko xaar euh, le 30 moom laa la man la Gris Bordeaux gis dimanche incha day ñëw pour bëri si lamb xeex boobu mu dox da koy teg fële ñëw wan boobu dama mën a bëre damaa dàq bëre loolu loolu mu dox noonu loolu moo nekk de loolu la teg te loolu si si la préparé incha allah. si combat bi si Gris xale yi nga xam ne dañuy sotti Gris xale yi ñëw wane seen bopp Gris Fass ñu gis si performance bu am doole est-ce que Gris Bordeaux du ko mu métti ci moom. non Gris professionnel dépassé na yooyu Gris léegi yéen buntul yéen lamb. Gris bëri ko bëre Yékini bëre Tyson bëre Bombardier xam nga bëre comme li nga Eumeu Sène bëre daanaan yëpp ay Balla Gaye ku ne kooku bu lamb mënutul rëy lamb la rek Fass la écurie Fass lamb mënutul rëy seen kanam ndax ay doom ay seen gox goxu lamb la lamb mënutul rëy suñu kanam lamb la rek li war am rek mooy am mais adversaire yi adversaire yooyu bokkuñu de Ama Baldé boo gisee ci fi mu jógee at combat bi mujjee nga xam ne am na fu mu teg combat bi te nee na fi ñu toll nii dafa am lu ko manqué woon ci ko xam ne diggante moom euh, roi des arènes mais amaat na ko jotaat na ko te dina xam ne moom li mu soxla dina ko jël loolu waxu signature la rek waxu signature la ñoom ñaar bu ñu tëjee si góob bu dimanche incha allah ama daxlu bëri Gris ama bëru adversaire yi ama adversaire yi mënut a bëral ëppul Gris adversaire yoo xam ne ñoo gën danser ku mbër a yëg ne kooku mbër mënut a ko teg pression si mais 130 bi Gris Bordeaux yor dina ko arrangé. non ah, ku wax gars yi dañuy wax 130 kilos Gris Bordeaux xam nga ne nga 130 nga. xam nga loolu loolu wax bu yàqu rek. waaw Gris Bordeaux nii la mos a moom lay neex neex yaramam moo ko neex la koy def combat bu ne ak nu mu koy préparé gis nga combat yu bëri indil poids indil ne ak noo koy moom lii moo dal xelam moo tax mu nii si moom laa la wax souplesse mu ngi fi ak rapidité bi mu ngi fi parce que boo xoolee ay léger la doon kontakal xam nga luur bi tam booy bëri ay léger kon xam nga ne kooku souplesse jaaxalu ko. <laughs> kon daal tey dernier mot lan la ngay wax woo waa Ndakaaru euh, mënut a ñàkk ko ci. waaw ñu ngi woo waa Ndakaaru yëpp mooy mu la boo limee boo mékkee di lim ay gox da ngay jum da ngay woo waa zone 3 waa zone 2 waa zone 1 parce que ñoom ñoo wër gox bi waaw boo xoolee Medina Fass Gueule Tapée Colobane Grand Dakar ñaata yëpp zone si même zone bi la ñëpp la ñuy woo xam ne seen dooma seen i doom ay bëre seen i doom muy Gris Bordeaux ak rakab Ada Fass ak ak yeneen xale yi nekk biir fa ay Tafa Gueye dégg ñëpp kon Fass dafa soxla ñu ngi woo waa Fass yëpp ñu ñëw jàpp si Fass Medina Colobane Gueule Tapée Niattali Grand Dakar ñëpp Sicap ñëw ñoom ñëpp ñëw jàppale seen i doom xam ne affaire yi affaire yi waa town la problème ak mu ngi ñëw entraînement mu ngi ñëw xëy na dafa nekk si ay yiteem dafa mu ngi ñëw entraînement chaque jour mu ngi ñëw Moustapha Gueye moo préparé combat yi moo ko préparé mais gisuñu ko boobu léegi supporter ñu ngi naan Moustapha problème am xam nga Moustapha Gueye mën ngi ko gis ci kanam Fass ngeen gis Fass Fass Fass dafa defiyee Fass moo tax ma gis am lu ma wax waa Fass te loolu denc ba Euh, incha allah dimanche. lan nga nar a bëree daal dimanche. waaw ah, dimanche Fass moom dina gis Fass dëgg dëgg dëggantaan Fass lay gis incha allah. merci coach. jaajëf. champion beegi noonu. la bërële. pour